élection wala mu ànd ak moom élection wala mu ànd ak moom ci caravane wala ànd ak moom génn mais Khalifa Sall xam na bu baax ñii lan mooy fekk du ci def xaalisam du ci sonn ndax xam na ko Ousmane ko dañuy caaxaan rek. gars yi gis ngeen li xew Bakel du dara dul Sénégal population sénégalaise bi ñoo yeewu léegi population sénégalaise ñoo yeewu kenn du ñu nangooti kenn jël seen malheur di ko politiquer état bi ko gënoon a mën a def ndax lu nee la def instant yi nii mais politiquer wu jëlu ko di ko wane di def ay mbir mënoon nañu yóbbu ay influenceur yóbbu gars yi ñu dem fa wane ni état bi def nañ li def nañ li mais defuñu ko dañoo liggéey li am solo mooy population ba fa nekk nañ ko dund mais dootuñu nangu population sénégalaise bi ñoo dul nangu ñu jël seen ay malheur di ko politiquer li ko am du dara lu dul Barthélémy Dias dafa dem am benn booyam boo xamante ni euh, moom papaam mi ngi ko tuddee Moustapha mu jël boppam moom tuddee ko Bart di filmer ay jeunes yu toog mu leen di filmer yooyu dañoo ñëw ndax bugaan jeunes yi ni ko waxoo dëgg du dëgg loolu foofu la affaire bi tàmbale mu jël di def directam filmer boo yooyu boo yooyu ni ko bu ñu filmer ñun yéen indiwu leen ñu fi fa la coow li commencé te dama ne xamal benn affaire foofu noonu fiefu Pastef la Pastef moo ko gagné élection présidentielle yi passé te da koy gañewaat ci élection yi loolu mooy dëgg toog nag ñu tudd Ousmane Sonko nga ne bu ñu tudd Ousmane Sonko ma nangam loolu saaga yàgg na ci moom yàgg na ci moom Ousmane Sonko nit mosu ko dégg mu saaga te saaga loolu c'est sûr et certain kenn mosu ko dégg donc noonu la bi demee du leneen gàddu ay nit Dakar jël seen i nit dem taxaw naa dañuy taxaw koo xamante ni moom xam na li ko mën a fekk ci lii. mais asa kii woykat bi nu mu tudd sax Sidi Diop plus da koy arrêté mu taxaw yoru woon permis ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi Sénégal yëpp xam ni sénégalais la comme ñëpp boo defee refus boo boole ci di menacer di def defi rawan ñu teg la ci yoon loolu mooy dëgg. mais taxaw fa di politique indi lépp jël malheureux sénégalais bu ko politiqué population bi ñoo ko dul nangu noonu la demee fekk ay jeunes yu toog ngeen filmer leen ni ñii ci diw moo leen fi indi affaire bi leen fi yaa ngi nii génn nañu waa Bakel génn nañu waa Bakel leen waxu leen dëgg fii dafa am borom loolu loolu moo fa am du leneen rien dootu Ousmane Sonko ku ko yàpp rek da nga ak moom campagne Ousmane sunk ku ko yàpp da bokkul ak moom ay élection Ousmane Sonko ku ko bu ànd moom campagne ñi ànd ak moom ci yeewi askan bi ci législative ànd ak moom ci local campagne yabuñu ko ñoom xam nañ li xew gis leen kenn ku séq ak moom election ku nekk ci mbedd mi di wax amut waaye yeewu askan wi ñu àndoon ak ñoom ñu ngi ni tekk daan ne ñii di dof dof la dañoo xamul waa ji ñu ko séqal ñi demoon ci présidentielle yi Ousmane Sonko am candidat ñoom ñu nekk ay candidat xam nañ ko Ousmane Sonko moo tax déggu leen leen ñu wax ñi musta dem ak moom élection ñooy lappi lappi te du yàgg dara fii quelques jours ñu xam kan mooy Ousmane Sonko ñoom seen gis est-ce que gis ngeen waa waa PUR ci seen délégation bi est-ce que gis ngeen waa Déthié Fall seen conférence de presse yi mujjee def ñooñu ñëpp xam nañ kan mooy Ousmane Sonko. xam nañ ko Ousmane Sonko Khalifa Sall xam na ko Ousmane Sonko Idrissa Seck mi dem ak élection Ousmane xam na ko Ousmane Sonko Macky Sall xam na ko Ousmane Sonko. Bougane ak ñeneen ñi demaguñu ak Ousmane Sonko élection bugg ko yab mais fii quelques jours léegi bu élection yi jàllee dootu leen dé dootu leen leen dégg dootu leen leen dégg. képp ku leen gis muy lapp-lapp rek demul ak Ousmane Sonko élection wala mu ànd ak moom élection wala mu ànd ak moom ci caravane wala ànd ak moom génn mais xale Khalifa Sall xam na bu baax ñii lan moo leen fekk du ci def xaalisam du ci sonn na xam na ko Ousmane ko dañuy caaxaan rek.